septième combat de la soirée baa ngi noonu dox ci diggante doomu jalaaw déggal ma naan doomu jalaaw Maguette Seck Boy Niang 2 doomu jalaaw la mujjee bëreel fii ci stade bi Weuz jàmbaar lay bëreel bu yaraax donay Mbita Njaay Maguette Seck rakku Lirou Diane moog Lirou Diane ñoo bokk ndey baay Maga Seck ci match nul Weuz Diambar jóge ci défaite digganteem ak Santa ñi ngi la woon arbitre yi Weuz Diambar ak Boy Niang 2 ña ngay lewtoo Weuz Diambar Boy Niang numéro 2 ñaari xale yaa ngay leewtoo Maguette Seck meb na dagg leewtoo ba moo yer ngemb bu weex bi Weuz Diambar taxawaayu mbot la taxaw ñoom ñaar a ngi noonu ana luy xew ñoom ñaar ñëpp jëli woon naa leen ñu xas-xas loo Maguette Seck ne ma dama ko arrangé bëreeg moom ndax ay defet la le woy jàmbaar ne ma xale la ma ëpp kattan bu ma ko jàppee mu jeex maaga sekk ne ma dinaa ko bëreloo ba làmmiñ bi lang wayli wayli tay la tay maaga sekk bëgg na ko attaque door na wës fayu door na wës fayu wës jàmbaar booy ñaa de wës cookaasaat na booy ñang numéro 2 école de lutte Balla wër jàmbaar ikrim bi ta Njaay ca Yaraax mu nekk combat bu neex Abdoulaye yaa ngi seetaan waaw maa ngi seetaan combat yi seetaan ñaari xale yi la ak jeunesse Maguette Sène yàgg na ci làmb euh, am na ay caay-caay yu bëre euh, mais wër jàmbaar defet yi mu jógee moo tax muy calculer lu bëre mais bu jëlee ay responsabilité tey war na mën a wane beneen xar macha allah kookoy Abdoulaye Dembélé suñu lamb le PDC suma xarit wa jàmbaar daa jóge ci ñaari defet digganteem ak Youssou Ndour digganteem ak Santa Ñing Maguette ci match waaye laata loolu am na ñum daanoon méb na door wës fayu ana waa Yaraax fu ngeen féete ana waa Géejawaay fu ngeen féete Boy Niang numéro 2 nag ndaanaan la moo fi bëree nag Nokia bëree Kewel bëree Ndongolo ndeysaan bëree double moteur bëree qualifié daw na jël na wës jël na ko wës bañ na wës ak Maga Seck jàpp na ba pare ndengeñ ko wës daan na ko laay xale la doole le retour de Weuz Diambar dimi flexion rek la def tuur ko daan na ko jël ba rëy na oh Weuz Diambar a ngi noonu baa ngi noonu. sànq maa ngi ko doon wax bu jëlee ay responsabilité am tey dina wane leneen def na ko bu ñu jàppante xaarul at xaarul Maguette ak eh, moom moo walu boppam mu indi clé bi nga xamante ne kenn xaaru ko ci moom daan na ko jël bu rafet waaw. macha allah kookoy Abdoulaye Dembélé waxan na ma ko avant combat bi. nee na ma bu jëlee ay responsabilité mën na cee génn mooy jàmbaare ngi noonu moo daanan kumbam làmb moo daanan sooroo moo daanan fët-fët moo daanan ngelesoo moo daanan siñoor moo daanan mbaytin siñoor ndaysaan moo daanan xale bi nga xam mooy tey daan na màgga sek wës ngi noonu xalil xalil waa yaraax xoolal ma waa yaraax mobilisation ba macha allah laay laay la laa xale baa noonu Maguette Seck dem na ci moom dem na ci moom oh oh rafet na looloy làmb dem na ci moom yéen a far oh géejawaay dem ak tey neexul de. waa géejawaay en tout cas euh, neexul seen côté loolu day am euh, boo xoolee amoon na jamono géejawaay dafa neexle woon euh, Pikine nekkoon ci lu naqar mais Pikine moo jëlaat li nga xamante ni moom mooy joie bi moom mooy satisfaction. donc nañu continuer di liggéey parce que ñi fiy daanu euh, mbëri mag lañu ñi nga fekk ñi nga xamante ni ñu ngi nekk di daan ay xale lañu ñoom ñoo gëm seen bopp gëm ni war nañ mën a lekk dara ci làmb ji ñoom ñoo nekk di daan mais ñi nga xamante ni ñu ngi leen di daan géejawaay ay ay ancien lutteur lañu ku mel ni Maguette Teg ku mel ni balagee Gaye ñoom ñëpp amatuñu dara lu ñuy prouver euh, xale yi nañ gëm seen mbopp bopp entraîné xam ni làmb mu ngi seen kanam. kooku Abdoulaye Dembélé waaye mbokk yi ñoo ñoo dooleel Weuz Jàmbaar mbokk yi ñi ñooy waa Yarax supporter yaa ngi noonu. combat bu neex Abdoulaye yaa ngi seetaan de. waaw maa seetaan combat yi seetaan ñaari xale yi expérience la ak jeunesse Madior Tête yàgg na ci làmb euh, am na ay caay-caay yu bëre euh, mais Weuz Jàmbaar defet defet yi mu jóge moo tax muy calculer lu bëre mais bu jëlee ay responsabilités tey war na mën a wane beneen xar kanam. macha allah kooku dembale suñu lamb le PDC suma xarit wa jàmbaar daa jóge ci ñaari defet digganteem ak Youssou Ndour digganteem ak Santa Ñing Magat ci match waaye laata loolu am na ñum daanoon méb na dóor wës fayu ana waa Yaraax fu ngeen féete ana waa Géejawaay fu ngeen féete Boy Niang numéro 2 nag ndaanaan la moo fi bëree nag Nokia bëree Kewel bëree Ndongolo ndeysaan bëree double moteur bëree daw na jël na wës jël na ko wës bañ na wës ak Maga Seck jàpp na ba pare ndengeñ ko wës daan na ko laay xale la doole le retour de Weuz Diambar dimi flexion rek la def tuur ko daan na ko jël ba rëy na oh Weuz Diambar a ngi noonu baa ngi noonu. sànq maa ngi ko doon wax bu jëlee ay responsabilité am tey dina wone leneen def na ko bu ñu jàppante xaarul at xaarul magal teg eh, moom moo walu boppam mu indi clé bi nga xamante ne kenn xaaru ko ci moom daan na ko jël bu rafet waaw. macha allah kookoy Abdoulaye Dembélé waxan na ma ko avant combat nee na ma bu jëlee ay responsabilité mën na cee génn mooy jàmbaare ngi noonu moo daanan kumbam làmb moo daanan sooroo moo daanan fët-fët moo daanan ngelasoo moo daanan siñoor moo daanan mbaytin siñoor ndaysaan moo daanan xale bi nga xam mooy tey daan na màgga sek wës ngi noonu xalil xalil waa yaraax xoolal ma waa yaraax mobilisation ba macha allah laay laay la laa xale baa noonu Maguette Seck dem na ci moom dem na ci moom oh oh rafet na looloy làmb dem na ci moom yéen a far oh géejawaay démb ak tey neexul de. waa géejawaay en tout cas euh, neexul seen côté loolu day am euh, boo xoolee amoon na jamono géejawaay dafa neexle woon euh, Pikine nekkoon ci lu naqar mais Pikine moo jëlaat li nga xamante ni moom mooy joie bi moom mooy satisfaction. donc nañu continuer di liggéey parce que ñi fiy daanu euh, mbëri mag lañu ñi nga ñi nga xamante ni ñu ngi nekk di daan ay xale lañu ñoom ñoo gëm seen bopp gëm ni war nañ mën a lekk dara ci làmb ji ñoom ñoo nekk di daan mais ñi nga xamante ni ñu ngi leen di daan géejawaay ay ay anciens lutteurs lañu ku mel ni Maguette Teg ku mel ni balagee Gaye ñoom ñëpp amatuñu dara lu ñuy prouver euh, xale yi nañ gëm seen mbopp bopp entraîné xam ni làmb mu ngi seen kanam. kooku Abdoulaye Dembélé waaye mbokk yi ñoo ñoo dooleel Weuz Jambar mbokk yi ñi ñooy waa Yarax supporter yaa ngi noonu